Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash d'information de 18h sur Walf TV. Certains Sénégalais pensent que le président Macky Sall va respecter sa promesse de réduire le mandat présidentiel à 5 ans. Toutefois, d'autres trouvent que s'il se dédie et aussi fait du war il sera discrédité par le peuple sénégalais. Le reportage de Fatou Diouf Dès son accession au pouvoir, le président de la République avait pris la décision de réduire le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Certains Sénégalais espèrent que le président Sall va tenir promesse. Je crois qu'il va le respecter moom. Il ne va mais su ko bàyyee su ko bàyyee du baax ci moom 5 ans dafa gàtt jeex na ba noppi waaw ah, ak dëkk fi mu toll nii élection yi gars yi parce que dëkk bi dafa xaw a joxasoo na ko bàyyi 7 ans dem ak yeneen na ci yokk yeneen 2 ans. En revanche, d'autres l'avertissent sur les conséquences possibles au cas où il renoncerait. Macky Sall a intérêt à ne pas se dédire parce que Abdoulaye Wade a, a subi le même, euh, la même situation, n'est-ce pas Il s'est dédié, le problème euh, oui. Oui, je crois qu'il a intérêt à, à, à saisir l'Assemblée nationale pour euh, effectivement ramener son, le mandat de 7 ans à 5 ans. Je crois que c'est dans son intérêt, vraiment. Il y beaucoup de gars qui sont avec lui qui n'ont pas connu ce que c'est, par exemple, le pouvoir. Et alors, vouloir, continuer, ne pas dire, hein, alors faire, par exemple, euh, du, du wahwahet. Parce que le wahwahet, ça va le décribiliser. Et moi, vraiment, j'aimerais à ce que Maki euh, fasse, par exemple, son mandat paisiblement, avec une tranquillité, Si certains pensent que le chef de l'État n'aura pas assez de temps pour réaliser ses projets en cinq ans, d'autres trouvent que c'est bien possible. À cinq ans, euh, on peut quand même faire quelque chose. Bien que c'est petit, hein, mais quand même, euh, avec cinq ans, on peut, par exemple, avoir une idée de que, par exemple, qu'il a, qu'il a fait. Hein. Parce qu'il y a eu les précédents qui, ont fait sept ans, mais quand même, euh, bien qu'ils ont fait quelque chose, mais c'était pas La durée du mandat du président de la République est de 7 ans et renouvelable une seule fois. Le président Macky Sall avait promis de faire 5 ans, mais depuis quelque temps, le doute s'installe et certains Sénégalais pensent qu'il peut revenir sur sa décision. Fatou Diouf Faye élection locale du 29 euh, juin le Parti démocratique sénégalais remporte plus de 120 collectivités locales des résultats satisfaisants selon le comité directeur qui annonce que le PDS peut reconquérir le pouvoir en 2017 ses membres du comité directeur faisaient face à la presse c'était ce matin en présence de Amadou Au vu des résultats obtenus lors des élections locales du 29 juin, le le parti le plus fort au Sénégal, estime le comité directeur. Nos propres listes ont engrangé plus de 550 000 voix. Le PDS seul a obtenu 24,6% des suffrages exprimés. Ni la PR, ni le PS, encore moins ne peuvent prétendre à un tel euh, pourcentage. Ensuite, euh, le PDS a gagné plus de 120 collectivités locales, ce qui en fait, comme je l'ai dit, et les chiffres le démontrent, euh, ce qui fait du PDS la première force politique du Sénégal. Et selon le comité directeur du PDS, l'opposition est majoritaire dans le pays. Situation qui peut à la reconquête du pouvoir en 2017 par le Parti démocratique sénégalais, espèrent les responsables libéraux. Si nous à des, à des élections présidentielles, au deuxième tour d'une élection présidentielle, mais c'est les forces de l'opposition autour du PDS qui seraient vainqueurs. Et ça, les chiffres le démontrent. Et ce sont des, des, des calculs fondés sur les procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes. Ce ne sont pas des chiffres que nous avons fabriqués. Donc euh, d'ici deux ans, nous n'avons pas besoin d'accélérer la cadence. Il suffit de maintenir la cadence pour gagner la prochaine présidentielle. Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais a félicité le secrétaire général national du parti Abdoulaye Wade, dont l'implication personnelle et le soutien politique ont tout permis au PDS d'atteindre ses performances électorales remarquables. Amadou Limbay, euh, merci. Abdoulatif euh, Koulibaly, déclaré persona non grata à Fondjoun par sa propre formation politique, selon le maire de Toubakouta qui vient d'être installé. Latif euh, Koulibaly, qui ne représente rien dans le département, ne fait que diviser les responsables apéristes. Le nouvel édile interpelle par ailleurs l'État sur l'état de délabrement avancé de la transe gambienne. qui est source de nombreux accidents. Pape Nyanko, il se nomme, il est avec euh, Mamadou Mahtar Il a passé tout le monde de dire le président Pape A... Mais Abdoulat Fikoul Balik, il ne représente rien à Sokon. Nous voulons en 2017 pour reconduire le président de la République, M. Macky Sall. Mais nous le disons, ce pas Latif Koulibaly, ce pas Latif qu'il faut. C'est le nouvel maire de Sokon qui a gagné Abdoulatif Koulibaly qui représente Donc nous disons le président de la République, c'est pas letif qu'il faut. Donc on prend toute nos responsabilités de dire le monsieur le président, on a des projets et on a des engagements. Notre première doléance, c'est la route Kerwalingaï Sokol. On le dit à haute voix pour le président de la République face pour régler notre problème. Sinon, d'ici nous prenons toutes nos responsabilités. Toubacouta a un problème de l'eau potable. Pour notre reportage Ramadan de ce jeudi, nous nous sommes intéressés aux programmes de radios et télévisions qui sont consacrés aux émissions religieuses pour euh, la plupart en cette période de jeûne. Les animateurs religieux s'en réjouissent, toutefois, ils dénoncent le fait que les médias les sollicitent qu'en cette période de Ramadan. Le reportage de Mami Khalignard. Les émissions religieuses sont très prisées au niveau des radios et télévisions pendant le ramadan Oustaz Ahmed Tidiane Niass de la rajo Almadina FM confirme. programme bi moom am na changement boo xam ne bu bu mag la. Nous rendons grâce à Dieu parce que présentement, nous sommes très sollicités et 50% de nos programmes sont consacrés à la religion islamique. programme bi. Euh, mën naa wax ne de quarante ba quarante cinq jëm cinquante pour cent am na changement. ci ndigalu alxalif Maulana Cheikh Ahmed Tijani Ibrahim Niass xalif général de la. Oustaz Mohamed Kouta chargé de programme du desk religieux de la même chaîne dénonce le fait que la religion islamique n'est valorisée euh, dans les médias qu'en période de Ramadan. Euh, dafa rafetul ci image bu ñu wax ne Sénégal daanaka booy à peu près quatre pour cent yëpp ay jullit lañ. Notre pays est à majorité musulmane, mais on met au devant de la scène notre religion qu'en cette période de Ramadan. Et je yàlla waxoon na ne bu leen foog ne dama leen a bind ngir foo dama leen a bind pour ngeen jaamu ma te bu fekkente ne jaamu yàlla la noflaay mënatul a am ci bépp boor nag. même mën nga xëy liggéey mais liggéey bi jaamu ci yàlla. Ces animateurs religieux qui sont également sollicités dans les conférences religieuses rappellent toutefois qu'ils ne privilégient pas l'argent qu'on leur paye mais plutôt les enseignements de l'islam. dañu sollicité dañuy def ay conférences conférence laa jógee Kaolack bu ma doon def. suba ñu ngi am conférence bu ñu war a def. conférence yaa ngi am parce que période la boo xam ne occasion jotaay yooyu sax dafay dafay dafay. en cette période de Ramadan on nous sollicite très souvent dans les conférences religieuses euh, mais on ne fait pas de business notre objectif c'est privilégier les recommandations divines. waaw koppar nag du maanaam du objet bi presque booy xool objet bi dëgg-dëgg mooy lii yàlla sas oustaz loolu mooy mission bi daal. Le ramadan tire à sa fin, mais les Oussas interrogés souhaiteraient que le temps qu'on leur accorde au niveau des médias pendant cette période continue après la Korité. Mamie Khadignard, euh, merci. C'est avec vous que se referme ce flash d'information de 18h sur Walfo TV. Merci à Hubert Assogba qui a assuré la partie.

dala leen jàmm meg teg bànneex la ñu am dellu siwaat ak yéen ci seen émission sortie ci rajo télévision bu Walfadjri eh, tey nag ñu eh, nekk fii ci eh, Tëngéej ci caw leen ci booru géej gi di fi dalal docteur Abdourahmane Diouf docteur ñu lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Tëngéej. ci quartier Thiawlène jërëjëf ci géej gi nga xam ne lu am solo ci koom-koomu Tëngéej la waaw eh, géej gu am solo bon nag Abdourahmane Diouf eh, di eh, docteur moom la moo ñu fi moom lañ fi fekk se suñu gan ku mu doon Abdoulaye Ba bisimilah ci nataal bi El Hadji Abdourahmane Diouf lay wuyoo mu ngi gane si àddina atum ca Rufisque di doomu lebu ak Safeen màggee ca Tëngéej dooree njàngam ca Tëngéej école Jokulde ak école Kolobaan laata muy wutali lycée Abdoulaye Sadji fala amee lijaasa baccalauréat ci atum 1990 El Hadji Abdourahmane Diouf wutali université Gaston Berger ba ca Saint-Louis bokk ci génération gu njëkk a jàngee ca université ba am fa maîtrise ci wàllu collectivité locale ak décentralisation laata muy dem master ba ca jiitu di master en droit international ba ko ñaareel di master en communication et média am fa lii di doctorat droit international économique ca institut du commerce mondial ba ne ca Suisse ba ci atum 2012 ci la Idrissa Seck njiital parti réew mi daal di wolu El Hadj Abdourahmane Diouf jox ko kàddu parti bi gannaaw yooyu la élection présidentielle Abdourahmane Diouf delluwaat ca Suisse gannaaw juróom-benn weer laataa ñu koy fal directeur général bu SONES am fa weer laataa njiitu réew mi di tekki ndombol tànkam Diouf delluwaat ca Suisse ba ci atum 2014 ci la del si Sénégal weel yëngoom ci géew politique bi ak parti réew mi bu Idrissa Seck El Hadji Abdourahmane Diouf bokkoon ca ñoo doon dagaan batu askan wi ca Rufisque waaye doon kuy bàggante diggante Sénégal ak Suisse ci wàllu liggéey El Hadji Abdourahmane Diouf di expert ci wàllu négociation commerce international promotion des investissements jot na liggéey ci privé bi jot na liggéey ak ay organisation internationale liggéey ak ay liggéey ak gouvernement doon consultant international jiite ab cabinet gu mu duppee agence africaine pour le commerce et le développement ci wàllu tàggat yaram El Hadji Abdourahmane Diouf doon ku sopp lool lii di football jot naa yëngu ci mbirum arbitrage ca fédération suisse de football El Hadji Abdourahmane Diouf di borom kër soxna ak ñetti bant waaye ci wàllu lekk El Hadji Abdourahmane Diouf ne ceeb bu ci ne du ko bàyyee kenn doon lu mu sopp lool doon tey ganuk sorti Ablaye boobu ñu lay gërëm bon nag kooku moo di euh, suñu gan docteur Abdourahmane Diouf ñu lay gërëm euh, gannaaw nag sa sa sa sa ndombal tànk euh, ni ko Ablaye boobu waxee ci wàllu politique nga bokk ci yi nga xam ne ñoo toogal parti réew mi fii ci Tëngéej ak li ko wër mhm. bokk na ci ndombal tànk bi ñu la xamee woon Sénégal mooy nga nekkoon directeur SONES actualité bi jamono ji dafa fekk ndox mi ñàkk. ñëpp ñëpp a koy jooy booy gis ci télé yi ci reportage yi ah, soxna yaa ngi yor seen i paan seen i seen seen seen i gone ak mag di wuti ndox euh, jafe-jafe yi ndox Sénégal boo ñu ko booy booy xool image yooyu en tant que ancien directeur SONES euh, ban réaction la lay jox. ok jërëjëf Ndeye Assou maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur Sénégal yëpp di nuyu aussi waa Tëngéej di la wax ne question boobu nga posé dama ci sawar a tontu effectivement waxuma sax en tant que directeur général SONES mais en tant que sénégalais rek boo xam ne dama yaroo ci dëkk bi màgg fi xam réalité dama ma a jàpp man ne ndox nekkul marchandise boo xam ne yéen moom ak yeneen marchandise mooy yem même boo koy jaay da ngay xam noo koy jaay parce que moo doon loo xam ne yemul ak dara boo ko amul noo dem fet yàlla dogal na man dama yàggoon bitim réew ñu ma woowee pour ma ñëw nekk directeur général SONES dama ne aw ma droit bañ ko parce que sama réew moo ma soxla sama réew bi nga xam ne yàgg na investir ci man moo ma soxla pour ma liggéeyal ko donc mën naa accès poste boobu. bi ma ñëwee itam sama ay idée laa fa demee parce que boo yoree post bu mel noonu da xool li nga xam ne mooy yoonu gouvernement bi nga xam ne moo la fa teg nga doxale ko mais itam man am naa xam am tuuti xam-xam am naa parcours am naa fu ma jaar te am naa nu ma xalaat ne ndox mi noonu lañ koy doxalee. bi ma ñëwee ba jóge fa dafa am yoo xam ne li ma fa nekk yëpp moom lay wax bu jëkk bi wax naa leen ko sànq ndox dafa doon loo xam ne du privilège ñëpp ko war a am muy biir Sénégal muy biir dëkk biiru dëkku taax yi muy ci dëkku àll yi ñëpp ko war a am donc lépp lu ñu war a mën def pour yombal ko nit ñi rek dañ leen koy defal ñaareel bi mooy lu mel ni ndox boo ko yoree waroo ko jox benn privé mooy société bi nga xam ne mu nekk fi mooy SDE man je n'ai rien contre SDE parce que société privée la boo xam ne dafa fi nekk créer ay emploi lu ëpp junniy sénégalais di ci liggéey donc damay respecter seen liggéey mais dama jàppale ni ko nguuru Sénégal doxe doxale moo tax problème yu bari ñu koy am parce que Sénégal dafa jël lu bari li nga xam ne askanu Sénégal bi moo ko muy yow muy man muy keneen jox ko benn privé te pour man sama xalaatu bopp laay wax nguur gi saytuwul affaire bi ni mu ko war a saytoo gis nga tey bu ma doon résumé dama naan problème mu ndox ci Sénégal lu bari mu ngi jóge sur le fait que nguur gi dooleelul SONES SONES il faut nit ñi xam ko moom moo toogal askanu Sénégal SONES alalu Sénégal la alors que SDE alalu privé la koo xam ne maanaam mu ngi ñëw di liggéey ci ndox waaye itam dafay ut ay bénéfices c'est très important bu ñu bëggee situation yi changer li tubaab di wax régulation. boo xoolee situation bi fi amoon daaw ñu ne tuyau bi toj na. SDE di wax naan SONES mooy responsable ba euh, askan bi toog fukki fan ak juróom ak lu ko lu ko SONES naan SDE mooy responsable SDE naan SONES mooy responsable pour man loolu yëpp amul woon solo li amoon solo mooy ministre de l'hydraulique nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñaar ñëpp lan la ci wax premier ministre bi lan ci wax président de la république lan la ci wax crise boobu mu ngi amoon au mois de septembre mu nekk l'une des plus grandes catastrophes hydrauliques de l'Afrique fi mu ne nii ñoom koo ci waxal ñi nga xam ne dañu nekk dans le secteur dañu lay wax ne la Sénégal bi mooy modèle bi nga xam ne yeneen ñi sax moom lañ ñu ñeewee maanaam ni Sénégal di doxalee ci mbirum ndox ñëpp moom lañ ñu ñeewee ñëpp noonu lañ bëgg a doxale man damay tontu ne modèle boo xam ne chaque année mu indil la mel nii nit ñi duñu am ndox di ñuy yor seen ay paan ñu yor seen ay siwo di dem di ndox man model boobu bëgguma ko soxlaaw ko loolu nag gouvernement bi rek moo ko mën changer. naka lañ ñëwee pardon naka lañ ñëwee modèle ñoom dañuy wax ne li ñu defaree contrat affermage ci Sénégal maanaam état bi parce que tout ce qui est infrastructure maanaam tuyaux yeeg yooyu ñuy wax yëpp état bi moo ko moom jël ko teg ko ci loxo SONES léegi SONES dafay mel ni ku koy loué SDE loué SDE bu ñëwee day exploité bu paree jël bénéfice am lenn la mu jox état bi. ñoom dañu ne Sénégal ni ñu ko doxalee noonu ci gën ci Afrique la. Hmm. mais man ma ne leen xooluma modèle bi rek efficacité bi laay xool parce que man dem naa fu nekk ci Afrique foo xam ne nee nañ modèle Sénégal bi moo gën waaye ñoom nañuy amee ndox moo gën ñun nañuy amee ndox man modèle yooyu ñoo ma gënal. mais sooxe sooxe boobu yëpp mu ngi jóge ci état bi joué wul rôle bi mu war a problème bi mu amee daaw mois de septembre premier ministre Mimi Touré dafa dem Kër Massar sol tenue militaire. président de la république fekk ko fa ñu ne lii fi am dinañ fexe situer responsabilité yi dinañ jël ay décision may fàttali ne SDE dafay signé ak SONES ay contrat d'habitude contrat yi mën na nekk un an mën na nekk cinq ans man ba ma fay nekk dañ ne dinañ signalaat beneen contrat waa SDE cinq ans mais si toutes les conditions sont